jàngat jàngat nag dina si ànd ki nga xam nekk moo di américain américain nuyu naa la bàyyi nga daal nuyu spectateur yi nga xam ni itam mooy daal ñooy daal di jàkkaarloo travers TV Serigne Fallou di la jaajëfal bu baax a baax di la fay waaye tamit di nuyu képp koo xam ne mhm. yaa ngi toog waxtu wi daal di janoo ak ñun fii ci soir si 5 di leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sénégalais yëpp Serigne Fallou Alors, donc, euh, l'opposant euh, sénégalais et président du parti euh, PASTEF Ousmane Sonko a accordé un entretien exclusif à France 24 euh, depuis son domicile à Dakar ma ni kon ki nga xam Ousmane Sonko nag accordé un ben entretien bi nga amal na ko fa nga xam ni itam mooy zone cité kër góor gi dëkkaani bi gën par rapport ak ponk yi n'a wax n'a leen ko alors du côté de la régie si mu mënee xoolaat li que xam ne les temps forts par rapport à boobu de li nga xam discussion bi nga xam amal na ak li nga euh, France 24 juste après cette décision prise euh, par le président Macky Sall peut-être pour daal di teg si suuf euh, li nga xam que modi ñettelu mandat ponk yi nga xamni tam ko ko na na si nga que modi condition yi

Euh, benn euh, période boo xam ni itam Sénégal dootu ko fàtteeti ma ni kon nag Sonko ma ngay daal di dànkaafu ñi xam ni itam ñoo ko bëgg xaj mu daal di bokk si yooyu de élection bu si nekk rek ak tontu yi xam ne itam indi na ko si dinañ ko daal di faram-fàcce mais tout d'abord li nga xam ni itam moo daal di frappant alors Ousmane Sonko jàpp na ni am na bés yoo xam ne du am courant aussi nanguñu benn électricité pour mu daal di dugg si kër ga. Ya, defar eh, eh, eh, li nga xam ne que moo courant bi ba sax machine am di ordinateur am da ko mujjee jox doomam pour mu dem chargé ko kër yi mu dellal exactement alors américain naka na naka na analyser cadre yooyu donc régi so su yemmee rek ngeen daal ñuy jox li nga xam ne que moo di les moments forts Ousmane Sonko tey jii nag génn fa nga xam ne it zone France 24 suñu ay naataangoo fa nga xam ne it zone France 24 américain. Euh, sëñ Fallou euh, di la jaajëfalaat beneen yoon euh, tey jii nii ñun ñëpp gis nañ li nga xam ne moo di Ousmane Sonko waxtaan bi nga xam ne séq na ko ak waa France 24 waaye nag waxtaan bi dafay am yenn point yoo xam ne rek dafa jar pour askan wi daal di fa teg seen loxo ànd doo hmm. faram fàccikandoo ñun ñëpp hmm. muy que Ousmane Sonko fi muy waxee naan këram amul courant ba day jël li nga xam ne moo di machine am di ko yónni doomam muy dem di ko chargé ji ak Ousmane Sonko fi muy waxee naan euh, moom Ousmane Sonko euh, gisul lu ko mën a très bokk ci hmm. candidat euh, ci élection yu vingt 2024 yi ndax lu tax tey jii ni moom Ousmane Sonko bu bokkul rek ni kon Sénégal dana passé moment yu métti métti yoo mm. xam ne dootuñ ko fàtteeti fii ci Sénégal mm. est-ce que li ñu passé lépp doyul tey jii maanaam euh, comme euh, fi ñu njëkkee rek mooy li dal biram su Souleye démb euh, ci kàddu goo xam ne yëkkati na ko bay tourné waat di ci bàyyi xel bay tourné waat di ko jéegulu est-ce que Sonko loolu du ko dal parce que tamit euh, sëñ Fallou dama jàpp ne tey nii Sénégal fi mu toll dund na mitit bu ne. Mm. Euh, mitit bu ne dund na ko. parce que mm. lan à cause de Ousmane Sonko. du askan wi jox nañ la seeni nopp rek da ngay taxaw nga wax li la neex wala da taxaw nga wax li nga bëgg a wax. cest à euh, ko ne. daal di dese. mais ci non nga xam nga ci courant bi la commencé mais loolu yëpp courant bi ko ëmb. Mm. muy que jii nii courant bi xamuñu exactement lan moo tax tax courant bi euh, courant doxul biir këram xamuñu ndax dañ ko coupé ci koñ bi xamuñu ndax disjoncteur moo am problème xamuñu leneen xamuñu leneen kon tey jii courant bi jàpp nañ ne maanaam moom Ousmane Sonko rek moo ci mën a taxaw joxe ci ay leeral wala ki nga xam ne moo nekk biir këram bu fekkee tamit oo na électricien pour mu jox na si ay leeral nee na courant bi dafa am problème bëgg na ñu daal di koy li nga xam ne moo di peut-être defal dépannage bi Euh, léegi ñu bañ. bu fekkee on kooku accès bi këram euh, selon kàddu yi nga xam ne na ko ki nga xam ne mu di sponsor. waaw xam nga tamit force de l'ordre yi dafa am xam ne seen métier la te ñoom xam nañ carrément li leen seen métier may képp ku ñëw bëgg a dugg fi nga xam ne ñoom dañ fa taxawal seen i euh, bolokis maanaam doo fa jàll mukk te xooluñ li nga xam ne moo di seen i mm. sac. Mm. xooluñ li nga xam ne moo di sa sac. bu ñu xoolee sa saak nag xam li nga xam ne moo nekk ci biir saak bi ba pare bàyyi la nga dugg dem def li nga xam ne moo di sa liggéey mais man daal jàpp naa ne tey jii nii ñàkk bàyyi américain wax di wax di doom moo soo nit gi da ngay soxla courant ku semaine ni ki nga xamne ko modi Ousmane Sonko ça à dire su euh, euh, li boobu li nga xamne ko modi coupé donc ça à dire su ay problème donc ne serait-ce que peut-être pour ñu ñëw dépanner ko ko mais mu ne sa machine la yobbu ñu dem chargé ko encore une fois dañuy dal di féewu ci propos Ousmane Sonko exactement xamna ça euh, c'est-à-dire Ousmane Sonko c'est un homme politique ko xamni tam itam ñëpp bàyyi nañ ko xel jamono ji si cadre yi nga xam ni itam mu koy daal di donc euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko peut-être li mu amul courant si biir amna fum ko tek borom génn diko dal di wax exactement parce que si cette communication wala wala mën rattraper rattrapé ku ki nga xam ne moo di Birame Souleye sànq ko doon di nga xam ne moo di defee France euh, donc euh, euh suné awma courant sama biir que ni même euh, sama machine dafa fay muti ko jox sama doom pour mu daal di ko yóbbu daal di dem li nga xam nekk moo di euh, tout d'abord abord dañuy daal di wax ci barricade bi parce que barricade bi du yoon encore une fois ah, ah, c'est à dire pour man sama xalaat bu garde exactement parce que si même euh, suñ koy barricade sax peut être pour maintenir l'ordre public wala nañ ko mën exactement ana si yan condition la nga koy daal di alors est ce que barricade bi sax gënul yokk li nga xam ne moo peut être tension bi parce que comme qu'on sûr, dire gis neen ay xale yi nga xam ne tam ñoo doon pour daal di koy dindi daal di toll si 15 si ñoom daal li nga xam ne moo di sans pourtant compter aussi les leaders de la coalition Yewwi Askan entre autres entre autres mel ni kon courant ak ndox dafa nekk loo xam ne itam c'est nécessaire surtout à l'égard d'Ousmane Sonko mais xam nga seigne fallu tay ji manam boy xol li may wax ba hmm. léegi maanaam euh, xaajaloowul amul jiwaloo ak li ngay wax hmm. mais ben affaire rek la nek di wax muy que tey jii nii balaa dara ñun suñuy xel lañ yor nañ analyser ci suñuy xel balaa dara. Mm-hmm. muy que Ousmane Sonko doomam bi nga xam ne jox na ko machine bi mu génne di ko chargé ji. Mm. doomam boobu bi mu génnee di chargé ji machine bi fan la jaar romb na alkaati yi ci buntu kër gi ñoom xam nañ fan la jëm est-ce maanaam bu fekkoon ne tey jii nii ñoom laneen euh, laneen tax na leen a jóg carrément est-ce que duñ bàyyi ki nga xam ne maanaam xam nga tey jii bala ngaa toog rek naan Ousmane nañ électricien est-ce que électricien fa Sëñ Fallou alors est-ce que électricien dem na ci buntu euh, kër Ousmane Sonko fi nga xam ne fa la takk yi taxaw ñi ne ki nga xam ne moo di euh, porte euh, ki nga xam ne moo di moo di bras droit am ñëw taxaw na leen kii dafay dugg pour di réparer li nga xam ne. moo di courant xam na xam na dañuy analyser juste peut-être sur les dire waaw waaw parce que nekkul di jéem a comprendre. mais mais ko di jéem a di peut-être peut-être peut-être peut-être di jéem avance que ni. ñëw na wala ñëwul mais dañuy analyser maanaam dañuy décortiquer jàngat la. dëgg la dañuy analyser non ci analyse lañ ne de maanaam man jéemuma wax ne comme par la force lii moo fa xew déedéet mais mais maanaam lépp ci analyse bi lañ ne maintenant ci analyse boobu nag amaana yow sa analyse dana dem ci côté Ousmane Sonko man sama analyse euh, mooy li nga xam ne moo di côté bu Ousmane Sonko. mais dañuy féewu juste si li mu wax. mais sëñ Fallou. maanaam euh, suñuy wax dañuy ne selon parce que chronique la. waaw sëñ waaw mais ah, xam nga ah, tey ah. jii nii bu fekkee léegi. mais mais mais mooy quand euh, pour yëf yi gën a war a mën a dal parce que ñi ngi nekk si benn période boo xam période bi nga xam ne itam président Macky Sall génn na wax euh, li mu wax mu daal di xaw a dalal li nga xam ne moo di xelu askan wi si lu bëri nag justement par rapport ak sa troisième candidature ma ni kon moom président mi ngi nekk di bind histoire waxoon naa ko encore une fois donte sax ki nga xam ne moo di Sonko jàpp ne ni président waree fam la def mais quand même il faut retenir que ni euh, ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko euh, kàddu yi nga xam ne itam yëkki na ko peut-être son nga ko naree contesté dina am traçabilité ku si mel ni doomam waaye itam ku si mel ni si kër ko don charger exactement donc wala ñu war a mën a si lu wax encore une fois euh, analyser ma jëm si Ousmane Sonko mais dañuy wax juste peut-être sur la forme. que ni de plus en plus yow barricade bi toog na dul benn dul ñaar nga daal di koy condamné rafetlu woo li nga xam ne que moo di barricade bi boobu sëñ Fallou euh, amul kenn koo xam ne maanaam jàpp naa ne dëkk nga Sénégal bëgg li nga xam ne moo di jàmmi Sénégal di mm. cautionné li nga xam ne moo di barricade boobu mm. mais euh, tey jii nii sëñ Fallou xam nga euh, njëkk dara da nga war a ànd ak sa xel nga xelaat ci ba pare mm. dégg nga Ousmane Sonko bi tabaski gi jotee biñ koy yóbbul ay xar yi tabaskeem dañoo tijji kër gi xar yi jàll ñu dugal xar yi ci biir kër gi waaw wala dee sëñ Fallou chaque jour am na kuy dem di leen yóbbul euh, seen ravitaillement dañ koy bàyyi muy jàll waaw wala déet te courant ci nit la bokk comme ni nga ko waxee sànq courant ci nit la bokk lan moo tax maanaam est-ce que est-ce que est tey jii nii ki nga xam ne moo moo ñëw pour mm. dépa euh, moo ñëw pour dépendre courant boobu est-ce que kooku ñëw na fa mm. est gis nañ fa électricien buy ñëw pour dépendre courant man dama jàpp ne maanaam tey jii nii euh, Sénégal toll na foo xam ne bu ñëwee bu nit ki ñëwee pour dépendre li nga xam ne moo di courant bi danañ euh, ko bàyyi mu dem def li nga xam ne danañ danañ mu dem def li nga xam ne moo di mm. liggéeyam mm. man loolu laa jàpp mm. danañ ko bàyyi mu dem def li nga xam ne moo di liggéeyam comme ni mu waree dégg nga même que bu fekkee sax dañuy visiter ay saagam xool lépp loo xam ne moom la ànd ak ba door koo bàyyi mu dugg ci biir kër gi ñu bàyyi ko mu dugg ci kër gi mais jàpp ma ne foofu noonu ele euh, kenn ñëw na foofu bëgg bañ loolu moom jàpp ma ko sëñ Fallou maanaam ci sama point de Hmm. waxuma pour que contre Ousmane Sonko wala pour que and ak ki que ce soit mais dama koy wax rek pour lan sama point de vue. jàpp ma ne kenn dem na fa pour dépendre courant bu Ousmane Sonko sëñ Fall. alors mon japp na ni aussi eh, nit ñëw na fa <laughs> ñu tere ko li nga xam accès en tout cas euh, li nga xam ne moo di yëf yi na lol euh, par rapport ak walu wu nu mel justement donc euh, dañuy nek fi pour analyser encore une fois ce discours bi nga xam ni Ousmane Sonko tay jox nañu ko tay ji dañ koy analyser juste à juste titre bobu de analyse nag ah franchement des fois aussi de laaj li nga que moo di parce que ku si nekk ak angle bi nga xam tombe itam noonu ko daal mais encore une fois allons rester justement sur les faits et les commentaires sont libres et les faits sont sacrés justement par rapport à d'une nga xam Ousmane Sonko yëkki na ko donc jàppale ni itam chers téléspectateurs alors. Euh, mon Ousmane Sonko nag ginnaaw daal di accordé benn entretien spécial ak li nga xam que moo di France 24 alors nous avons koy laaj américain ñu ne euh, aujourd'hui ma xam euh, dan la barricade wala kon.

maanaam tey jii nii bu fekkoon ne dañ ko euh, euh, classé ci kër buntu këram muy euh, ci biir këram mm-hmm. su mandat de dépôt mm-hmm. ni kon ñenn ñi danañ ci xam dara ñi xam ne lii kat dañ ko teg biir këram maanaam këram lañ ko tëj ko li nga xam ne moo di ñaari at yi mu war tëdd biir këram lu koy tëddee boobaa jàpp naa ne problème du ci am mm. mais waxuñu benn yoon ne ñaari at yi mu war tëdd biir këram lu koy tëddee mm. dégguma ko fen ñu wax ko

Euh, par rapport à la situation actuelle du pays waaye nañ daal di essayer aussi de euh, si euh, peut-être quelques-uns yi nga xam ni itam peut-être dañ wax seen xalaat par rapport à li mais que modi la sortie d'Ousmane Sonko alors Mbaye nga daal pour suivre bataille xam nga manam ci côté bobu loolu rek la ci wax muy que Ousmane Sonko bu fekkee muy que li nga xam modi moo di blocus bi ñu buntu mm, kërëm loolu rek lañ ko mëna tuddé muy que bëgg fagaagal ben leader politique mm. parce que ba légui japp ma ne euh, euh, gisu ba légui sax gisaguñ li nga xam modi ben euh, pacte bu ñu signé pour que wane né Ousmane Sonko dañ ko def mandat dañ ko def qui mandat dépôt biir kërëm mm, dégg ba légui amul gën ben signature buy génn wane loolu ba paré ñu ngi continuer di fa tek li nga xam modi Euh, barricade bi ba pare barricade boobu noonu ñoom ca anam bañ koy def dañ ne woon dañ ko def pour euh, li nga xam ne moo di dañ koy def pour mën a mesurer li nga xam ne moo di situation bi fi mu tolloon mais tey ji jàpp naa ne Sénégal yëpp dal na ñëpp a ngi ci seen jàmm ñëpp ñu ngi xëy di liggéey ñëpp ñi ngi dem ci seen village yi tabaski ci jàmm kon bu fekkee calmer jeu bi léegi bëggoon instant bi jàpp naa ne jeu bi calmé wu na war nañ ko mën a may jàmm wala ñu may jàmm waa këram hmm. bu fekkee Ousmane Sonko la ñu war a tëj ñi génnee yu ko ko may jàmm waa mais li mu wax ci côté boobu moom dama ci ànd bu baax a baax parce que loolu lek lañ ko mën a tuddee comme que ba léegi gisaguñ dara luy génn firndeel ne Ousmane Sonko tëj nañ ko biir këram te yoon moo maye ñu tëj ko biir këram comme que gisaguñ loolu lek dañuy ànd ci li Ousmane Sonko wax muy que dañoo bëgg faagaagal benn leader politique bu tudd Ousmane Sonko. alors justement donc euh, mi ngi noonu chers par rapport ak li nga xam ne que moo di la situation actuelle fa nga xam ni itam moo di seetluwaanu que euh, cité kër góor gi et que toujours li nga xam ne que moo di les lieux euh, ñu koy daal di li nga xam ne que moo di barricade encore une fois alors euh, le journaliste lui a posé la question à savoir ma xam que nga euh, sous euh, sous li nga xam nekk moo di résidence surveillée mu ko non je suis arbitrairement détenu Ousmane son loolu di xam exactement mu daal di jàpp ni benn décision de justice nak wàccu ci comme pour mu ko obligé pour mu daal rester chez lui manam jàpp ne nak li euh lune mel juge wax ko te itam mm, jàpp ne donc lune mel tegul sion yoon euh, Ousmane Sonko loolu da di jàpp justement ginnaaw bu mu di jàppee ni itam da di tecc si këram bàyyi force te itam euh, bobu de tecc nak juge ben juge euh, wax ko nga tam ben juge euh, desenewul ben ko li nga xam ko modi mandat jëm si résidence surveiller jëm si ki nga xam ko modi Ousmane Sonko mom nak il est obligé di rester parce que fa da di jàpp ni saa su yëngoo ñu yaaka ni nitu ciowul américain. waaw Ousmane Sonko. comme hmm. ma ngi koy faral di wax. Hmm. muy que dafa dem ba nga xam ne turu Ousmane Sonko rek moo mel ni tur boo xam ne dafa ànd ak coow. parce que Ousmane Sonko gis nañ fi ay jours yoo xam ne génn na di dem tribunal. Hmm. dëkk bi rëbb. Ousmane Sonko jugee na fi Ziguinchor pour jëm si Dakar. dëkk bi rëbb. Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey def na fi lii dëkk bi rëbb. Ousmane Sonko dem na fi Touba dëkk bi rëbb. Ousmane Sonko dem Akapes sax dem na fi bi muy ñibbi am na ay euh, kii yu amoon ay affrontement yu amoon. kon dafa mel ni turu Ousmane Sonko moo ànd ci benn biir wi wala tamit ñi nga xam ne ñoo taxaw pour euh, muy ko force de l'ordre bi wala ñi nga xam ne ñoo di état bu Sénégal instant bi ñoom mm. ñoo taxaw pour boole Ousmane Sonko ak biir yi boobu. Mm. dégg parce que tey jii nii euh, mënoo tëj nit biir këram ba nga xam ne da koy xañ ay jegeñaaleem ñu ko gën a sës. Mm. dégg ñu ko gën a sës da koy da leen da nga koo koo xañ xañ ko ay jariñaale ñu ko gën a xam ne kenn mënu ko cee gis kenn mënu cee am accès pour gis ko hmm. jàpp naa ne euh, yoo xam ne tey jii nii bu fekkoon ne Déthié Fall dafa bëggoon a gis Ousmane Sonko xam koy fekk hmm. dem gisi ko xam ne du am benn problème hmm. euh, keneen bu ko bu ko euh, Cheikh Thioro Mbacké bëggee gis dana dem gis ko ci benn gis boo xam ne du am benn problème mais tey jii Ousmane Sonko dem na ba nga ne dañoo jàpp ne ñaari nit bu taxawee buntu kër Ousmane Sonko sax dañ naan trouble à l'ordre public la ñaari nit sax bu fa taxawee loolu la wax après mujj andi laak ci lacrymogène yi gazé gars yi përëm përëm bu ñu ko gazé nag ñii dégg ne gazé nañ fii ñiy dégg ne gazé nañ fii xeex commencé waat hmm. léegi ñu bëgg ne Ousmane Sonko moo nekk problème bi déedéet Ousmane Sonko du problème bi su démb yaa ngi ko doon wax euh, sëñ Fallou muy que bu fekkee ñaar taxaw nañ jàkkaarloo. Hmm. yow nga yor sa yar di dóore kii moom it moom mooy ki ñu dóor. Hmm. ki ñu dóor bu reculer lu mu reculer reculer te ki nga xam ne moo di dóore mi ngi continuer di ko topp amul benn sens. xeex ba day continuer di fa kon jàpp naa ne tey jii nii euh, ñi nga xam ne ñoo di état bu Sénégal ñi yëkkati seen yar maanaam jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko parce que tey ji nii euh, jàpp naa ne président Macky Sall bu xëyoon léegi ne barricade bi nga xam ne teg dañ ko cité kër góor gi ndax dañ dafay mm, mm. kon maanaam yar boobu noonu benn yar la boo xam ne état bu Sénégal kese moo ko mën a teggi. Mm. kon ñi ngi ñaan ñi ngi koy ñaan mu teggi ko bu baax a baax tey maa ngi ko doon wax démb gëm nañ ne lépp loo xam ne dana gën a yóbbu Sénégal ci jàmm la ëttu jàmm instant bi président mi ngi taxaw ci dox ci te danañ ci dox bu baax a baax. sëñ Fallou alors espérons euh, justement par rapport à barricade maintenir euh,